ñaari candidat ngeen yu yu yu sérieux ñaari adversaire yu sérieux ngeen am benn bi muy opposition bi et son principal leader Ousmane Sonko beneen bi mooy dund bu cher bi dund bu cher bi nit ñi sonn nañu njëkk yi yokk nañu foo laal mu ngi métti non dund yombul mais di waxal nag aussi li nga yóbbu eggul foofu de was fi ne fii nit ñi yuuxu leen la courant bi cher na waaw dëgg la nangu loolu moom naa la ko lan moo tax man euh, je ne connais pas le DG de la Sénélec xaw ma ko danoo laa xam mais ma pour moi il doit sa démission. rendre sa démission ndax lan. waaw ndax lan. non il doit sa démission. mais lu tax moo war a rendre démission non may ma wax la may ma damay expliquer en ba ñuy campagne man ba may campagne ñeneen di campagne seere daa bokk lu ñu doon tiitaroo ñun waa benn bokk yaakaar am na wala am koo fi woo mu ne wéy courant daan coupé par ay heure loolu jeex na ba ñuy jaay demoon nañ bay jaay courant ci sous région bi am na wala am. ba tey loolu changé ah, ma dem expliqué la yow ni coupure yi ne ci dëkk bi ni mu bari woon yaa ngi ko gis wala gisoo ko. y a mais coupure. ñëwul comme moo daan ñëwul oui non attends problème à la Sénélec xam nga loolu. yaa ko wax léegi non yaa ma posé question non courant bi cher na mais est-ce que c'est Sénélec qui est exclusivement responsable de cette cherté non tout ce qui est courant ci réew mi c'est Sénélec waaw non ça moom vraiment Sénélec non non non mais mais Sénélec mooy jaay courant danga may laaj na quoi bëri nga defal ko nga bàyyi ma la question baax na kon jot na mais demal damay bàyyi ma wax li ma xalaat man ni far ci en nguur kay bon semaine mu baax beneen la pour Sénélec bon soo Sénélec waaj day réussir mais réussirul c'est ça la vérité doo dox Sénégal doo fen Sénégal yi kenn jar ma ko su defoon lu baax fi la taxoon il a bien travaillé bi Matar Cissé liggéey en 2019 dama leen jàkkaarloo je l'ai félicité ne Matar Cissé a très bien travaillé il a réussi la Sénélec su keneen ñëwee def lu bon wax dëgg yàlla daa bon baaxul. bien war a xoolal boobu maintenant nag xañ naa ñi ko fa fal nay xool seen ni ko dina dina xool ni ko. vraiment mais am solo am solo dund bi. cher non xaar xaar balaa ci dund bi xam nga nag politique de l'autruche bi ngeen def da ngeen ko war a bàyyi. Ah. courant bi dafa cher on va incriminer Sénélec parce que Sénélec la ñu xam Sénélec moom mooy suñu interlocuteur. waaw mais Sénélec dañ koy fixer le courant kan moo koy fixer le prix courant pourquoi doo leen wax pourquoi ngeen bëgg a bàyyi bi tey kese ci ci ci ci mbir bi. mooy directeur général état du Sénégal moom moo nekk di wàññi di rocci subvention courant bi. et ñu nekk di ñu appliquer le pris réels pourquoi vous ne dites pas ça. Sénélec n'a cinq ou dix directeurs benn directeur waaw. benn directeur fa daan nekk moo daan joxe résultat yi. moo daan joxe mooy résultat yu baax yi wala bon bu ñu la nee ci béréb yaay joxe résultat yu baax may ma rek moo xam xam nga may ma na man nekku fi naan ay bité yeeg bité ne m'intéresse pas vraiment xaw ma ko sax il ne m'intéresse pas léegi solo daal mooy Sénélec lu sensible la te dañuy yóbbu ay élections pour gagner des élections. mais ministère des finances bi d'accord euh, FMI wañ loxoom. mu mu mu rocci bi moom xamul ne Senelec lu sensible la xamul leen ne dans trois mois vous allez dans quatre mois vous allez vers des élections xamul leen ne cherté courant bi ça peut éprouver les Sénégalais booba tey yéen a ngi bàyyi bitey muy liddeeku ci biir mbir bi mais le problème c'est pas bitey ah c'est le retrait de la subvention loolu mooy problème bi waaw kon xam nga loolu dama dama dama ne man du ma nekk ci def bi laaw Senelec parce que daa bokk ci nguur gi du def du def du yàq mais bi tey man li ma wax li ma gëm mooy doit rendre sa démission loolu laa gëm moom li nga xam ne ça n'engage que lui non moom la engagé lu mu def moo xam man laa gëm maintenant bu dee am nga leen loo xam wax ko Sénégal yi xaw ma loolu laa xam maintenant dama ci nguur gi nag xeexu bokk ko daa jox bokk far ñoo far yow kuñ bokk mais ku deful lu baax ne li may wax yaay kat. bi ñu tax non non. dama ne dama ne mënuñu ñu naan def na lu baax def na lu bon. bi tey ñu fal ko ñu wax ndax def lu baax def lu bon mooy kat. damay la le directeur général de la Sénélec foofu fi cap bi nekkoon deux mille dix neuf yéen a tey Sénélec eggaat fii lu jugul mais nekkul en crise da ngeen yo état du Sénégal moom moo. c'est pas vrai ma li ma bëgg a dugal fi ma bëgg bëgg dugal maa fa bañ a dugg. demul <laughs> noonu. donc d'accord non demul noonu. d'accord demul noonu. d'accord yéen yéen a wàññi subvention bi. dama ne maa kii euh, wuyu ma. ma ngeen doon waaw ba ma gàttal waaw waaw. Ah. man du ma doon directeur général Sénélec yilifuma ko Sall bi wax ak réew mi. Amadou Ba mi candidat war a wax ak waa Sénégal xam nañ li ne Sénélec te buñ bëggee gagné nee na bu ñu ko réglé la dangereux